wàccaay bi di ñaan Alioune Sèye Junior suñu borom defal yow am yow da nga am combat. man amagu ma combat. maa ngi ci wàccaay bi di nekk. instant bi yow kat euh, kat yow boo ma bëgg a jox. woon la làmbal sa kanam mais kan nga visé. wala ay koo bi visé ma da nga koo liggéey. Ah. mooy boobu nag daanaka kenn koo bi wax dëgg yàlla da nga koo liggéey. maa ah. ngi toog sama ruq daal rek di xaar waaw. Ah. mais di sant jëmale di sant xaar bu ko saako di jàpp mais dafa maa ngi dégg ñëpp daal waaw. ñoo ko mën a ko ay ku bëri naan. Yeah, waral. waaw mais combat bee ko laaj. waaw combat bee ko laaj. waaw ànd ak samay mbokk rek. Uh-huh. ànd ak sama gars yi ñëw fii sa bàll Moussa Mboup xayta. waaw école Ligue Mat Fadam yëpp igri waale beeg Mat Fadam ñëpp a ma jàppale. Uh-huh. waaw contact dóor gan contact dóor baax. waaw dama gis ni nga teel jël porte attaque bi dugg ko sa gémmiñ xanaa na ko tàmm. waaw mais dama ko tàmm sax mais lii koor gi may entraînement sax dama ko tàmm indi moom. Uh-huh. waaw mais looy wax sa adversaire Albouri. non maa koy jox le 15 arène nationale bu ñëw ñu jëflante. mais arbitre bu sifflé da ngay song wala da ngay. arbitre sifflé damay dem. da ngay dem waaw. mais xeex. Ah, ah. bëri xeex. Ah waaw. non xalaatu ma ko. dama gis ne yaram bi tàng na. waaw dama ci daj ay coono. di ñaan sëñ Fallou ànd ak rek. waaw. jaajëf jaajëf. ñoo ngi leen di nuyu di nuyu réew mi di nuyu bitim réew tey bu ngeen gisee bés bi nag tey li ko waral mooy danoo jëm ci bésu 15 mai te bésu 15 mai dañ ci ànd ak moo géet ànd ceeg Pape Souleymane Bathily te dañ cee fas yéene xaar ay surprise yu doy waa ndax bés boobu Sidi Diop dina ci teew bés boobu El Hadj dina ci teew bés boobu Pape Diouf doomu yaay càll ñi ngi ji dina ci teew ndax dañoo fas yéene waat wane waat suñu culture ci beneen façon waaye nag moo géet lañ ci àndal loolu moom moo waral tey ñu teew fii ci Géejawaay fekk fi ki nga xamante ni moom mooy Boucher Ketchup nga ne boo jàppee Alaaji Mbay loo koy def waaye lu jiitu loolu ma bàyyi la nga nuyu ak ñi lay seetaan pile non central bi lu ma koy yóbbu. waaw gannaaw bañ sant yàlla jul si yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur di sant monde entier di sant waa géejawaay gi yëpp yëpp yëpp yëpp di sant suñu mafia bi yëpp ah waa marché njaareem baay laay marché bu bees mun mënuñu lim kenn ndax ku lim juum di sant booy yi nga xam ne nag ñoo fi sonn suba ba tey muy ay bàcc ay Omar ay Moussa ay Gorgui Sarr xam nga booy yooyu nga xam ne suba ba tey ñu ngi fi ay Ablaye Sall di defar di sant suñu kilifa suñu xarit suñu wasila di ko nuyu di ko ñaanal yàgg fi te weer muy Serigne Mountakha Bassirou di ñaanal jànkatu xasida yi si Tuubaa yëpp di ñaanal waa Touba bu baax a baax a baax di ñaanal waa Tiwaawan waa Njaasaan waa kër Cheikh naa Cheikh Saad bu di ñaanal kilifa diine yëpp di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo sëñ Muntaxa Basiru mi nga xam ne nag mooy suñu wasila mu tasal ñu ko ci kilifa diine yëpp di nuyu suñuy nit di nuyu suñuy xarit di leen nuyu yéen presse bi sonn ngeen trop dem lii ngeen di daj lii ñun dama bëgg mbër yi xam ni ak musiciens yeeg ñooñu ñu xam ni bu dul presse ñun duñu dara presse moo ñu yëkkati ba nit ñi naw ñu presse ñoo ñuy wane ba nit ñi naw ñu kon suñu leen tegul fenn fi rek ñun dañuy daanu parce que bu ñu presse wanewul rek ñun dootuñu jar dara ci àdduna tey ku ñu xam ak ku ñu yëkkati ak ku ñu respecté rek yéen a ñuy defar moo tax ñu defaru kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen siyaara di nuyu waa géejawaay yëpp di ñaan yàlla mu may ñu ndam ci kaw Alaaji Mbay incha allah rabi le quinze di nuyu kenn nag spécialement parce que c'est un homme boo xam ne xale la jeune man nee naa leen ku def lu baax ma wane loolu laa xam mooy sama carte d'identité ba nga xam ba ñi nga xam ni bëgg nañu lijjanti seen bopp ñu jéem a xam ñiy def lu baax ñu dem topp leen pour ñu defal leen lu baax moo géet dañ koy nuyu di ko sant sonn na ci làmb ji bu baax il a dépensé beaucoup de million te millions yi mu dépensé séntuwu ci dara bii mille francs gëj nga koo gis ci làmb loolu mooy bëgguma ci retour te xaalis boobu bu ñu paree di ngeen dégg fan la koy def ci Sénégal te xale la même pas cinq xale bu ndaw di liggéey kon nañu ko ñaanal yàlla defal ko jàmm il a dépensé beaucoup de millions te làmbam kenn waru ko yàq dañ ko war a defar lii may def nii yëpp samay propre moyen la njambaa na ngi nii xam na li may wax ñun ñaar la dem ba tey du dërëm boo xam ne nit yëkkati na ko jox ma c'est mes propres moyens muy open press muy billet yi nga gis ñuy waaj a jënd parce que njambaan sama xarit la sama doomu ndey la sama frère la tey lii bu ñuy bëree ñun ñaar ñëpp dañuy jël lépp ne ko Ketchup mi du la jàppale parce que noonu la demee tey sëñ Tuubaa bu la teralee nag dangay ngay tedd te da nga koy nangu teraanga boobu maa ko nangul sama bopp njambaan ku ko jàppalewul man di naa ko jàppale man samay propre moyen laa jël maa jënd ay billets man maa organiser open press jël njambaan ñu ànd liggéey ci ndax boobu ba tey moom moo may soññ tey état bu nekk ci man wala ma bañ am benn problème moom moo ma jël di ma sonal di ma tàggat yéene ma jàmm mu nekk sama xarit nekk sama mag nekk sama frère ñu yàgg kon tey bu ko nit ñi jàppalewul nee naa ko bul woote bul woo kenn tey bu fekkoon man bëriwu ma ci bis bi man maay jël sama propre moyen jox ko mu jënd ay pieds kon comme que maa ngi bëri ci bis bi dañ naan ko ah Ketchup kat mi ngi ci kon na la jàppale kon lépp sama ndodd lañ ko teg dinaa ko dékku ndax Serigne tubaarek rek laa yaakaar xéewal yooyu Serigne Touba jox na ma ko te dinaa ko def ci combat bi sonalu ma kenn wax naa la ko wax naa leen ko coro si ndogu bi sonalu ma kenn laajuma kenn lenn barke Serigne Bamba Xaadimu Rasul billahi wallahi dinaa jël samay propre moyen def ci làmb ji te incha allahu rabbi bu neexee Serigne Touba Xaadimu Rasul dinaa am dama nga ne boo jàppee Alaaji Mbay noo koy def ah, waaw Alaaji Mbay dafa jël làmb ji doon caaxaan ñun duñu ay duñu ay xale ginnaaw bu ñu bëree comédie bari kaf bari ree ñun nit ñi ñoo ñu bëggee noonu dara mënul fëkk suñu bët tey li lu nit di am ci àdduna pour rëy rek wala di jaay affaire rek yàlla mi ngi ñu koy dénk barke Cheikhul Khadim bu dee murit murit la ñu pire bu dee ay koppar Serigne Touba ñu koy jox bu dee ay bee yàlla ñu koy suturaale kon bu ñu neexoon fuuy du ñu fuuy dañuy wàccee suñu bopp ba yem ak sénégalais yi ñu ñuy bëggee di ñu bég di ñu ma leen di bégloo moo tax ñu may ñaanal may am ndam te loolu ma nekk noonu démb ak barki démb maa ngi ciy gis avancement du ma ko changé alaaji mbay nag dama koo nax li ma ko naxee mooy damaa comédie musicale comédie musicale mooy nga nekk ci làmb mel ni ku ko joxul cër di ko patam patamee di badar badari di ràngati ràngati waaye bu guddi jotee bu ñëpp tëddee da yeewu dem lijjanti sa bopp. boo leen ma gisee ngeen xam ni je suis plein d'état. Hmm. waaw alaaji nee na dina galgal nee na dina calcal nee na dina ñol-ñol nee na day delloo buum ca mboy ga. buy delloo buum ca booy ba day mel day day fekk man ma may ko ko. ndax alaaji mbay fi mu wéer làmb ji mooy man ma diriger yëngal bruit muy puus juumloo ma. te xale dafa màgg damaa liggéey lu métti yéeg ci diini ah, di tingom njambaan mii di yéeg ak moom ci kaw di wàcc di jël ndigal di yéeg ci kaw di wàcc saa Cees ma koy jëkkati di ko yéegal ci kaw di wàcc ñu may dóor may yéeg balla ngay jël yat di ma dóor vidéo yëpp incha allahu rabbi vendredi laa koy dugal ndax lamb ji léegi ku jug na certificat médical damay bañ mu daw mais incha allahu rabbi vendredi ci guddi je vais partager tous mes vidéos ngeen xam ne j'ai bien travaillé et billahi rabbi bu neexee yàlla ak yonent bi dinaa ko dan jël bu set wecc bu yomb incha allahu rabbi ah, ah. bu barke borom Touba samp yool te xol rafet wala sama jabar ak samay doom quatre semaines ngi nii gisuma leen muy un mois damaa ñëw gàddaay fii nekk sama kër xarit Assane Mbaye bàyyi sama kër bàyyi sama lépp dëkk moom Assane Mbaye jabaram di ma toggal Mame Marie man nekk foofu quatre mois ngi nii sama jabar ma bët ak samay doom ma abandonné loolu làmb jaralatu ko kenn soo gisee mu jaral ma loolu nag damaa xam fi ma làmb ji di yóbbu ndax je suis l'estar jamono ji man Serigne Touba dafa maa def estar may romb ci mbedd bu ma génnee si biti toog sama oto damay yaakaar ni man maa moom réew mi ndax buuse buuse bee kàcc kàcc gi day mel ni ay mbàccum gerte léegi nag boo xalaatee ni nit ñi dañ laa bëgg da daw defet incha allahu rabbi néew ma maa mën maa ëpp doole de waaye yàllaa mën moo ëpp doole waaye li ma war yëpp nag def naa ko bu dee ñaan ñaanlu ñaanlu naa bu dee entraînement entraîné naa bu dee lekk lekk naa ba doyal bu dee nelaw nelaw naa lépp lu làmb di laaj rek def naa ko te bu bis baa di ngeen xam ni Ketchup mbër moo ñëw ci biir stade. waaw léegi léegi Ketchup déglu ma ñu waxtaan tuuti tey jii Alaaji Mbaye dala daanoon tey nga ñëw pour fayu mais bu arbitre sifflé nga ko may cinq minutes ngeen raak. Alaaji du xeex ak man nee naa la Alaaji mbay làmb ji yëpp ci ay xel la ko teg. parce que respecté wu ma ñàkk maa respecté mooy ma jël làmb entraîné wul muy wër di taxawaalu jël làmb ji wéer ko ci gàllaaj jël làmb ji wéer ko ci ay nit pour ñu jàpp ma wala dara man doomu bambara laa ay takk ki fas yàlla sunu borom moo koy fente man bu ma oyofoon génn naa na bu yàgg mais Sëñ Tuubaa nekk sama ginnaaw nee naa ko ba tàyyi mu liggéey entraîné sa chaque chaque kii. face to face dama naan ko sa waay dama la nga liggéey ah. bii passé gisoo leen ko daa xees pecc mel ni kuy xeesal alaaji mbay bu bis baa ngay xam ni mbër ak mbëran daan alaaji nen da lay daan ba pare dem Vegas toog fa xaar non Vegas boobu mu weer Vegas bi Vegas du noonu lañ fay demee dugg na ci pax. am na ñu ko mën a yóbbu Vegas. kan moo koy yóbbu Vegas. dinaa la wax benn affaire bu ndaw. yàlla na ko yàlla dimbali. yàlla jàppale ko ba lépp lu mu bëgg rek mu sotti waaye dinaa la wax benn affaire Vegas boobu muy dem man dama faa dem ba pare. min nga yoonu ngaay. d'accord Bousse bu ñu ñëwee tuuti ci ginnaaw El Hadj Mbaye saa bu ñu ko dékkee micro li muy mooy vingt combats damay daan Bousse vingt fois ndax fa ma ko jaaroon laa koy jaaraat ci lan la ko teg ba tax mu ñeme la. ci ay teg xel ay dam yee ay kii non non bu arbitre ne prip fu mu nekk dinaa ko fa fekk. kan El Hadj mënul daw. ak suufu arène nationale bi suufu arène nationale bi boo fay daw yaay taxaw. Bousse Bousse maa ngi lay maa ngi lay fay. Bousse bu arbitre génnee seen diggante yow ak Alaaji Mbay ngeen runkum daje. nan nee runkum daje mais ku ne xam ne man du ma wax ndax soo gisee ma duggaat ci làmb lamb dafa dafa dafa dee. ma bëgg ko dekkilaat te boo leen gisee nii Baye Balla xam nga li may wax Fadel xam nga li may wax jamono jii ma dugg ci làmb gis nga ni làmb changé waat na am na ñu nekk ci hôpital fan yi sama snap bi mën naa la ko wan sama snap bu bu seketiob bi mën naa la ko wan yéen ñëpp ngeen gis message yi ma capture ay nit yu tëdd hôpital nan ma Ketchup bañ gëjee seetaan lamb kenn xamul lan la yaa ngi ñuy bégal. lu tax nga sentir lu tax nga mu nekk doomu géejawaay dëkk géejawaay lamb ji bëgguma mu génn géejawaay maa ngi nuyu nekk fi sama yaay nekk muy Kër Mbay Fall. kër Mbaye Fall lu ma am nee na tamaate loqoteeg bu njàmb du benn tamaate loqoteeg bu njàmb du benn waaye dëxi nag maa fay am na ñànkatang ci diggante bi lu leen boole nga ne dëxi nag ñoo bokk luñ leen toggee waaye les séparé la lii mélangé la alaaj alaaj neen dafa judd ci bëre yaru ci bëre maa ngi ci bëre man ma ñu tàggat ma ci bëre man naan bëre lekk bëre dund ci bëre nelaw ci bëre raxasoo bëre sëlmoo bëre nee na bu bés ba dina bàkku bàkku bi fecc fecc bi bëri bëri soo gisee li ma fekk fecc nga xam ne Alaaji Mbay mënul fecc lu raw lii te condition ba la muy laaj amu ko. mais la nga fent doy waar. la ma fent tànk yee baax. te Alaaji Mbay caxabal boobu muy la waaj bu ñu xam nga bëgg naa bëgg naa koo daan te du ma ko gaañ ndax dafa am njaboot am lu muy liggéey bu caxabalee tànk bi laay damm. wax naa la lu leer nag fii ci biir géew bi kan faama maa dàq bëre ci àdduna bu bis baa nga xam ni maa dàq bëre ci àdduna te dinaa la woon bëre pire nag et dur. mais Bousse bis waaw kan Ama sama mag la sama xarit la c'est mon frère Ama ñun ñoo nekkoon Amérique moo a moo ma recevoir Amérique man ak moom ak jiwaan dem si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana Ama c'est un frère c'est un ami lamb ji yoonam new ci Ama soo gisee ni mu doon defee ay vidéo alaaji may nga xam ni malak moo ko ci Ama c'est un bébé xale la yëf yi comme moom day ambiance daal mais jàppee wu ma ko dara c'est un frère te dama ko naw bëggal ko sama bopp moom xam na loolu mais combat bi bu albine ne prib du nelaw moom xam na ni du nelaw ndax xam na ni gaynde pire mooy bëre ak Alaaji May waaw ñaari doomu Géejawaay ak njambaan ngeen bokk njambaan mooy njëkk a bëree daan ñëw jaar sama yaali ma daan sangu ba set xaaral ma def ci kon kër kër Ibrahima Cissé solo am maa ngi faak ay ñetti abdou yu ay turki njaare wax may lus ñu baale la nga tàggatoo ñu ngi ñu mais dinaa lay wax benn affaire bee passé ñëw ngeen samay ndogu man samay xarit geen dagg samay gërëm looloo indi lii yëpp encaissé gu ma dërëm ci làmb kenn joxagu ma ah, non gara man bugguma kenn jox ma waaw ki bugguma kenn jox ma mais damaa am samay nit yoo xam ni suñu gisee dañuy ñëw jox ma ndax du ma leen laaj de ñoom ñooy ñëw jox ma ñu nekk arlem wala ñu nekk ñu nekk Amérique comme grand moo Ndiaye ah, ah grand moo Ndiaye Séri Mado maa ngi koy gërëm moo gën encore une fois c'est un frère Aziz Ala Ndiaye ah Birane Ndour Massata Ala Ndiaye Ndoura Balde Pape Diouf Amadou Ba xaritu président de la République a ah, maa ngi gërëm àdduna xam nga di gërëm askiya ak Ngoy Fall di gërëm sama doomu ndey euh, nu mu tudd di gërëm Birane Ndour Matar Diop suba teel Assane Mbaye Ibrahima Cissé aw ma fayam bébé sëñ Modou maa ngi gërëm Bou Cité Safara sama kër maam fi Géejawaay Marle fis de Balla Balla Gaye 2 maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax xam nga dafa nekk ci ay bagage préparation bëgg am ndam tey la tukki nii tey dafa am fu ñoo nekkoon léegi balaa may ñëw fii tey ji léegi la jël oto bi ànd ak lin dugg ci àll te ñoo waroon ànd man ak moom mais combat bee tax di ngërëm mbaytin waa école Mor Fadam yëpp ay Mori saa Kajoor maa ngi koy di ko ñaanal wér yàlla na ko yàlla may wér ndax moom mooy suñu fierté mooy suñu ndam mooy suñu champion moom moo ñu tàggat ci làmb maa ngi gërëm Malal maa ngi gërëm Géejawaay yëpp maa ngi gërëm Bébé Baas di gërëm Ismaïla Baas di gërëm Mor Ouchar Serigne Saliou ah, Thioune ah, di teg lépp nag ci nuyoo bi may nuyoo ci àdduna nii yëpp di ko nuyoo nii ak li ma fi wax lépp lépp hmm. jël naa ko teg ko ci loxoy sëñ Muntaxa Basiiru Xaadim di nuyu Baye Karim Alaaji Mbay tey la kañ mercredi yaa ngi wax fii mënatoo fee waaj de trois jours moo ci des. waaj wees na bul yàq làmb ak mën a bëri bañ naan jóg leen waaj waaj jot na da ngaa tëdd dina law man ma jog waaji alaaji mbay alaaji alaaji mbay alaaji eh.